waa li ñu ci tënk mooy benn mooy incha allah bi dinañ màggal màggal gi waaw màggal gi moom euh, fàttaliku julli géej gi dinañ ko màggal ren comme niñ ko daan màggalee waaye nag ren gis ngeen li xew ci réew mi xew ci àdduna bi muy affaire feebar bi waaw loolu ba tax ñun jël nañ suñuy matuwaay euh, pour jàkkaarloog feebar bi te alhamdulilah waxtaan nañ ci gouverneur ba rafet na ko matuwaay yi mooy lan mooy euh, wowuñu ren mbooloo maanaam ñi nga xam ne ñoo war a màggal màggal gi dañ koy yemale rek ci membre bureau ak xëy na quelques daayira quelque quelques jëwrin de daayira ñu ci gàttal daal nee nañu bugg ñoo weesu téeméer bugg ñoo sax yegg si ci téeméer maanaam ci ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ci màggal bi loolu benn la ñaareel bi aussi bu ñu ñëwee incha allah rabbi danañu respecter norme d'hygiène yi nga xam ne gouvernement joxe na ko maanaam ñu xaw a sore ah ñu xaw a sore ñu ñu takk masque ah gel alhamdulilah dana fa am lu doy a doy a ak yu demee noonu lépp loo xam ne daal. conseil que ko ci ci mbooloo face à ça inshallah rabbi dinañ ko def